ku wérul lu liggéey ba am lu muy jox njabootam ku wérul du jaamu yàlla kon nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla def naa di ci am tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy suivre seen chaîne sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen a ngi seen programme Fagoro Fagoro nag comme ni ngeen ko xamee chaque semaine dañ ci daal professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga Bio di tradipraticien nekk fa la ca diwaanu euh, Kër Massar Euh, professeur ndax xam naa ñam bëgg nañ ko contacter numéro moo nekk ci suuf écran bi ba ñam nag bañ di ko envoyé ay question yoo xam traité nañ ko ci vidéo yi ku am loo ci beneen feebar bokkul ak bii nga yem ci vidéo bi nga dugg ci euh, boo tàppee rek ci barre de recherche bu YouTube bi nga tàppee turu feebar bi teg ci professeur Ousmane Ndiaye sama xalaat wala boo defee buñ ci defee euh, vidéo rek vidéo bi dina génn nga seetaan voilà comme ça question yi bañ na di di sonal voilà tey nag produit professeur day ñëw ci li nga xam ne mooy feebar yi ñu ñaan ay feebar cardio wala maladie cardiovasculaire hmm. loolu lañ bëgg xam exactement waaw mooy lan ak lan moo koy teg doomu aadama yi lan loolu si boppam lan la ba pare cardiovasculaire parce que man dama koy dégg rek ñu koy wax cardiovasculaire cardiovasculaire hmm. mooy lan hmm. ak lan moo koy lan mooy ay sabab ginnaaw ba ñu la nuyoo di la ziar salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sunu mbokku internet yëpp yi nga xamante ne ñu ngi suivre ci biir réew mi ak biti réew bi yëpp. Mhm. waaw comme ni nga ko waxee ci début vidéo bi rek maanaam toujours maanaam vidéo bépp boo feebar boo xalaat rek. Mhm. mën nañu def nañ ci vidéo ba pare. Mhm. toujours nag nit ñi dañ may woowaat dañuy seetaan benn vidéo rek toujours ñu ngi koy répété dañuy seetaan benn vidéo rek. laaj la vidéo yoo xam ne bañ ko defee sax ëpp na un an. léegi bu maanaam tey ki dal ci vidéo bi war na xam ne feebar yi yëpp yëpp presque. def nañ ci. Eh, yi sonal Sénégal boog yi ñu sonal fii. Hmm. def nañ ci vidéo donc bu tàppee ci baat de recherche bi rek dina ñëw. Hmm. mais dañuy ñëw seetaan benn vidéo bi rek coupé la woo la téléphone di la ci feer boo xam ne def nga ci vidéo hmm. te vidéo yi loolu moo tax ñu koy def. pour au moins nga toog ñu détaillé ko nga mën a gën a comprendre parce que en général Pape ki ma woo téléphone. ki seetaan vidéo bi moo war a gën a mën a comprendre que sax ki la woo téléphone. parce que ki la woo mën nga nekk ci ay activités dara. te doo ko a leeral yenn leeral yi. mais bu dee euh, vidéo bi jël nga sa temps toog explique carrément dañ développé nañ lu bari au moins kon nañ ni ñu di xool vidéo yi bu baax daal mm-hmm. donc euh, lool lañ leen wax li bu ñëwee ci nag euh, suñu thème du jour mm-hmm. muy les maladies cardiovasculaires mm-hmm. en général bu ñu wax maladie cardiovasculaire mooy maladie yi nga xamante day nekk ci xol bi xol bi ak li nga xamante ni mooy jëm ci vaisseau sanguin yi moom moo la ñuy wax les maladies cardiovasculaires ci wàllu xool daal la ëpp lu ñuy lu lu muy nekk loolu la ñuy wax les maladies cardiovasculaires léegi maladie cardiovasculaire yooyu nag pam mm-hmm. eh, manam day day day day lié ci xol bi ak vaisseau sanguin yi bu fekkente ni amna affection rek bo xamante amna anomalie surtout mm-hmm. entre li ñuy wax les oreillettes mm-hmm. et les ventricules donc da mëna am problème moy moy lan ah, la <laughs> dina jax trop wa xam nga organe ah, waaw am amna am na am na ñuy wax ñaari oreillette ñaari ventricule oreillette gauche ak oreillette droite mhm. ventricule gauche ak ventricule droite mhm. donc yooyu dañuy bokk ci circulation sanguine bi maanaam dañuy fekk ñoom maanaam euh, dañuy communiquer ñoom ñaar pour pour circulation deret ji mën a mën a dox boo ci la circulation du du la circulation sanguine donc day am tuyau yoo xamante ni bu organe cœur bi pompé day jaar ci ventricule yeeg yu demee noonu donc processus la mhm. donc processus boobu nag bu amee anomalie maanaam bu fekkee la communication entre ñoom ñaar demul rek problème day am. maanaam ñoom ñaar dañoo war di jokkalante mm-hmm. ventricule yi ak oreillette yi mm-hmm. léegi bu fekkee xam nga wax naa la am na ñaari ventricule am na ñaari oreillette deux ventricule gauche ak ventricule droite oreillette gauche ak oreillette droite mm-hmm. léegi bu fekkee ci am na ci benn ventricule ak benn oreillette boo xam ne ni ñu communiquer normal loolu wala ñaari ventricule ak benn oreillette wala ñaari oreillette ak benn ventricule boo xam ne daal ni ñu war a communiquer normal donc day indi problème yooyu fa dañoo dañoo war di communiquer normalement dañoo war di yëgoo exemple mi ngi mel ni ni ma ko mën a détailler rek comme ak gardien boo xamante ni di yogagul ak défenseur am gis nga parfois lu ci bëri ah, <laughs> bii yu dugg noonu nga xam ne manque de kii communication ñoom ñaar ñu mooy tax bal bi dugg parfois parfois tamit noonu lay amee ci organe bi manque de communication entre les ventricules et les oreillettes mën na indi problème yooyu li ñuy wax problème cœur di noonu lay problème cardiaque surtout donc en général loolu mooy les maladies cardio cardiovasculaires mhm. kon naa défenseur di bàyyi bal pour góol jàpp daa a leer waaw kay. sinon rek ci kaay la jëm <laughs> ci noonu waaw wala nga dem bay mbëkk di jàpp fekk góol waxul yu demee noonu. waaw parce que yow mu ku yàgg suivre match di ko yàgg xam. bien bu ko defee nag mal entendu boobu entre góol beeg gardien bi mën na indi problème. donc bu ko defee tamit noonu la indee entre ventricule ak oreillette aussi yooyu noonu lay indee problème. kon loolu mooy kër. Hmm. xolu doomu aadama doomu aadama ak deret muy pompe. ok muy pompe deret ji daa mel ni hmm. pompe bi muy pompe deret a coordonné. coordonné lépp yóbboo muy dox normal muy dox normal waaw kay. su amee ñàkk yóbboo bu am ci diggante cër yi koy def rek. Hmm. day day daal di indi. boo déggee ñu naan arrêt cardiaque ak yu demee noonu gis nga. day dem ba ca kër bi taxaw. c'est-à-dire dama xam nga mos naa wax ci benn vidéo kër xol mooy loo xam ne toujours du du sonn exemple maanaam xam nga bu sonnee rek mhm. problème am na mhm. cest à maladie am na mhm. léegi nag lu tax du sonn parce que dafa am mm, diastole ak systole maanaam boo tegee nii sa loxo nga gis mu dóor bàyyi dóor bàyyi c'est-à-dire day dóor boobu day liggéey noppalu liggéey noppalu maanaam li temps temps bi muy liggéey ak temps bi muy nopp noppalu ñoo tolloo exemple moo tax du sonn moo tax toujours cœur di continuer di di battre normal di dem Lagi bu arrêté rek il y a un problème kerja lay cardiaque te loolu indi nit ki problème. comprendre comprendre nga. li ma comprendre xaw ma partage ak <laughs> uh-huh. par exemple su fekkoon damaa war a jóge fii nii Fadia. Hmm. daw ba Kër Massar. Uh-huh. mais su ma dawee une minute. wax hmm. minute. Uh-huh. minute su fekkee tamit da ngaa bëgg a dem kër Kër Massar te nga nga bëgg a toog tamit ni da ngay dem Kër Massar toog benn place. Ah, bëgg a dox. waaw day yooyu mooy indi problème yooyu noonu la demee nag en général boo gisee xol du sonn temps bi muy liggéey ak temps bi muy noppalu ñoo ñoo ñoo tolloo moo tax moo tax xol du sonn moo tax même bu doon dund cent ans it pro euh, kër bi moom du du am problème baat normal sinon rek waa fekkee am na problème rek il y a une maladie. yooyu nag nekk ci xol bi nga xam ne bëri na ay façon loolu ñuy wax les maladies cardio cardiovasculaires donc les maladies cardiovasculaires nag dafa bëri ay xeet bari na ci yu bëree bëri bëri bëri mhm. donc mënuñoo détail yëpp mais xam naa dinañ ci indi ay yenn quelques leeral mhm. donc loolu la ñuy wax daal maladie cardiovasculaire leer na quoi <laughs> d'accord cardiovasculaire mhm. lu jëm ci xol ak deret yi ak organes yi ci yàpp yëpp d'accord donc waa CNP moo def crise cardiaque moo tax ñu la arrêt cardiaque gis nga arrêt cardiaque arrêt ba cesse de battre. dégg nga kii mën na dee. mën na du du kiyaat. voilà. ndeysaan. yàlla yàlla def lépp. ko indi les causes. donc les causes y a quelques yo ça veut dire que cause bi mën na en général ci sexe mhm. sexe en général moi que homme qui ñi la février, mhm. donc ci âge aussi ci mhm. sexe euh, euh, âge wu nit la wala la en général ju haut mën na mën na ay donc yooyu day indi ci ci ci ci ci cause yi mhm. donc am na ci yoo xamante ni yenn feebar yi moo koy indi mhm. lu mel ni jabet mën na dem ba indi ba indi feebar yu demee noonu lu mel ni waaw lu mhm. mën na ko indi donc lu mel ni tension wala hypertension tension bu yéeg yu demee noonu mën na ko indi donc lu ma ne tabagisme li ñuy wax euh, kii naan alcool wala muy jël cigarette. donc aussi mën na bokk ci facteur yi nga xamante ni. Mhm. day indi feebar yooyu. Euh, obésité. Mhm. ci am yenn poids yu mag yi nga xamante ni. Mhm. normalul mën na ko mën na ko indi. yaram bu bari yaram bu la mën na ko indi. li ñuy wax la sédentarisation maanaam fixé toog benn place. mën na ko indi. te loolu. waaw bañ a ñàkk lu bari. manam ko xam day toog lu bari activité physique de la sédentarisation bobu Pape war nañ ci mën a euh, sensibiliser waat quelque part quelque parce que bo xolé ñi toog ci bureau yi mm-hmm. liggéeyu bureau dañu toog lu bari mm-hmm. c'est-à-dire yàlla ma yàlla baal Pape mm-hmm. euh, bon bo gisee yenn fièvre yu bari du dal euh, baykat yi en général manam ci waxine parce que li ñi ñak mo bari fièvre yu bari da nga gis ni patron yi day daal parce que lu tax parce que sédentarisation boobu ñu wax toog boobu ñuy toog cest dire yaa ngi toog sa bureau xam nga yaa ngi toog sa bureau suba ba ngoon sooy ñibbi yaa ngi toog sa oto ainsi de suite donc toujours yaa ngi toog li ngay toog sa sa sa dafa loolu si day indi yenn problème yaa ngi toog sa ordinateur yaa ngi toog sa téléphone portable surtout jamono ji nga xamante ne yow waaw commencé toog di correcté correcté li ngay yëngatu mooy sangu beeg julli beeg yooyu yaa ngi toog di correcté waaw ba gis sa bureau bureau bi. boo duggee ci bureau bi da ngay toogaat. ngay toogaat waaw. ba ba ngay wàcc. 17 heures géej waaw même procédé bi ngay defar waaw waaw. boo eggee le temps que ngay julli gee sangu reer. tëddaat ndox da ngay tëddaat. waaw bu la boo tëddaatul yaa ngi toog effectivement parce que en général ni rek balay mu génn àddina loolu ñu naan magi tox mais scientifiquement boo ko du lenn lu dul c'est-à-dire bu changer dem fenen day ñak activité en général xam nga yenn mag yi du buñ demee duñ fa nekk yu demee non te tamit koñ biñ dëkk ci exemple xamuñu fa ñu bari wala yu demee non donc dootuñu dox yenn dox yeeg yu non dañuy dañuy toog quoi dootuñu liggéey yenn liggéey yi léegi bu defee bu fekkee 1 an 2 ans dañuy màgget li ma lay wax ni lu c'est à vérifier ah, ah, ah. légui bu ko defee nag màgget boobu rek mo leen indi nak ñu gaaw bu ko defee ñu surtout ñu liggéey am ay ñu nekk. waaw kay indi leen ñu toog kër yi effectivement effectivement kay. léegi da gis ni un an deux ans rek maire bi day màgget. parce que dafatul dara dafa retraité. retraité dafa nekkoon ci activité. toog defatul dara donc la sédentarisation boobu de indi problème bu rëy sax léegi moo tax même mag ñi nga xamante ni tey dañuy def yenn commerce yi nga am sa yaay muy jaay ak yooyu même bu amul bénéfice mm-hmm. toujours dama ko wax bu amul bénéfice cest à activité yi muy def ak yooyu ba ko mu def ko ah, waaw kay waaw kay waaw waaw ba muy def activité yooyu di santeem da da ciy baax defar waaw kay waaw waaw mën na bañ a def yu réy nag mais mën na def yu ndaw ndawaan yoo xamante ni mm-hmm. dina xëy dem jëndi gerte ñëw saaf génne toog ci buntu kër gi xam nga kii donc dina yëngutu daal tool donc loolu aussi jarul jarul xalaat jarul xep donc en général facteurs yooyu ñooy indi facteurs yi nga xamante ni eh, facteur bi ci bëri na beneen bi mooy facteur familiaux mooy facteur eh, héréditaire aussi mën na nekk parfois euh, day nekk facteur boo xam ne facteur familial yàlla hmm. am na famille yoo xamante ni dañuy boo dañu am genre feebar yooyu da leen di xaw a topp quoi oh. dont nag c'est pas une maladie héréditaire il faut ñu leeral ko waxuñu ne day day wàlle hmm. donc du feebar yu wàll mais feebar yoo xam ne mën na topp famille en général ren di yàpp day yàpp famille donc toujours yooyu du day am donc du ko defee en général yooyu moo nekk yi nga xamante ni mooy mhm. mooy cause yi nga xam ne mën na ko waral surtout mhm. li nga wax si si si léeg ko loo xam ne day dal ay famille te nekkul luy wàlle am na benn tubaab bu ñu dégg ñu ne benn jour la bu si sax mhm. ñene moom du dugg du dugg ak yow am am na laal yooyu wax mm-hmm. dama amatul avion la wóoru wóoru ma moo tax ma ko loolu quoi day sa courant avion la ñu mm-hmm. loolu ne dugg avion buy voyage dama leen lay yëngu dugg avion parce que ñoom pour ñu am accident avion avion seen famille day yow voilà loolu la xam nga loolu du wàlle <laughs> du wàlle waaw mais ñu mel ni lu topp seen seen famille waaw malédiction effectivement waaw day day du wàlle yow muy daal du wàlle daal du wàlle am na ku mës a daal sa maam bu mës a daal sa mhm. papa mu daal mhm. yow nga jàppale boo duggee mu daal fi la boo ci dugg mooy effectivement waaw du wàlle du wàlle effectivement du wàlle cadre boobu lay dugg di cadre boobu lay dugg noonu lu xaw mystique lay nekk waaw effectivement dajee bëri sax dafa bëri feebar yoo xam ne boo xoolee mhm. am na feebar yoo xam ne tey prostate moo leen topp am na feebar yoo xam ne bë famille boo xam ne bëñ moo leen di topp am na famille yoo xam ne siti moo leen di topp waaye am na famille yoo xamante ni tey nopp buy metti wala loxo am na famille boo xam ne ainsi de donc tànk yu metti donc yooyu yëpp day am am na ñoo xamante ni nag yenn feebar héréditaire muy ay jabet ak yooyu doo comprendre benn famille boo xamante ni presque mën naa ni am na ñetti mag ñu si des rek leen hmm. rey même chose la hmm. daal waaw <laughs> <laughs> wala duwaale duwaale. xamul loolu kenn mënu ko expliquer. mënu ko expliquer de. waaw te wala duwaale de waaw ngi noonu day am feebar yoo xam ne loolu la ñuy wax nag loolu donc feebar yooyu parfois day am. day bëri donc bu ko noonu lay demee loolu nag tamit jar na di di xa ràññee hmm. ak feebar yi wàlle les maladies héréditaires c'est pas la même chose mais bëri na feebar yoo xam ne du wàlle mais day topp famille loolu aussi foog ñu foog ñu. waaw yu am ñuy doon. waaw oh, noonu lay demee. loolu am na solo léegi nag bëgg nañ xam professeur léegi xëy na sax bi ñëw ci parce que tamit bu dee ci euh, yi ak solution yi deuxième bi ñëw mm-hmm. mais loolu mën nañ xam nit nan la mën a diagnostiqué boppam mm-hmm. ba xam ni moom loolu am na am na problème cardiaque cardiaque nit ki mën na ko xam wala am na signe ñu ko war a mën a wax waaw en général nag bu ci buur moom da dem hôpital mm-hmm. ñoom ñu wax la ñu defal ay radiographie échographie yu demee noonu mm. ay analyse yooyu ñoom ñoo la ko mën a déterminer carrément mm. mais sinon aussi am na ay signes yoo xam ne moom mm. mën na xam nga feebar yi dañoo bëri signes yoo xam ne ñoo xaw a nuroo te du bekk du bokk même maladie donc loolu mo aussi mën mais maladie cardiovasculaire bokk na ci parfois sëqët mën na nekk ci symptômes yi mais xam nga sëqët aussi mën a nekk leneen ak leneen donc rek mën nek nekk sëqat mën a so sa sa coono essoufflement mm-hmm. nit ki di gaaw sonu di fat lu yu demee noonu mm-hmm. tamit mën nek nekk yi mm-hmm. comprendre mën na nekk symptômes yi donc battement du cœur irrégulier manam cœur bi ni muy battre comme la wax sax normal soit mu gaaw ba ëpp nek palpitation wala mu yeex ba ëpp wala du normalu dal manam dal ni muy battre normalul loolu aussi mën nek ci ci kii bi am na ñoo xam ne sax tey Pape boo jàkkaarloo la ñoom ay seen fi du ñu def tey day mel ni fii day jóg ah, ah, ah. day gaaw waa kay waa yooyu yooyu mën na nekk ci yi donc yooyu mën na nekk signe te fekk nit ki tamit du mhm. mën na nekk mën na mën na indil tamit nit ki problème mu vision sax mën na ci mën na ci nekk moom laa ba am vision fekk problème feebar bi la mhm. donc yooyu mën na ci bokk tension di mën na nekk ci symptôme hypertension artérielle surtout moom moom moo ci gën a graaw mën na nekk ay maux de aussi bopp bi metti mën na nekk symptômes na lay indi sax nopp yi riir ak yu demee noonu hmm. ay bourdonnement d'oreille ak douleur thoraxique fii di metti mën na mën na mën na mën na ko na ko nekk aussi hmm. donc dafa di symptômes yi dafa nekk symptômes yoo xam ne yoo xaw a bëri la hmm. mais tamit ça ne veut pas dire que ni ku am symptômes yi rek loolu moo la daal mais yooyu yëpp mën na ci bokk waaw mi ngi noonu mën na dem ba nekk perte de mémoire aussi mën na ci mën na ci bokk donc gis mais tamit mën nga man nga am mën nga am cardiaque tamit wala maladie cardiovasculaire fekk tamit signes yi tamit mën nga ko bañ a sentir yow sa bopp. waaw doo yëg dara aussi. Hmm. parfois gis nga xam nga am na joueurs yoo xam ne ci biir terrain la ñuy dee gis nga. waaw waaw na day wóor na arrêt cardiaque te bi ñuy football dara euh, avant match bi. gis benn feebar si ñoom. yi moom si ñuy topp. donc loolu la ñuy wax waaw mais gis nga donc la yooyu tamit day am. donc

mën na ko mën na handicapé loo nit ki. Mm-hmm. ci wàllu euh, liggéeyam déjà comme ni ñu koy waxee rek xam nga ko feebar moom. Mm-hmm. dootoo liggéey moom. Mm-hmm. donc kon mën na indi mën na wàññi sa koom-koom parce que xëyatoo liggéey bu luy demee noonu. mën na la indil hospitalisation. cest feebar yooyu mën nga nit ki mën na am ñu hospitaliser ko mu ñu entrer ko hôpital daal. bu ñu entrer hôpital boobu tamit am na ci ñoo xam ne entrer euh, euh, hospitalisation boobu lay yàgg donc loolu aussi problème lay nekk. Mhm. donc mën na dem ba indi la mortalité li ñuy wax dee. Mhm. donc mën na ci ñàkk bakkanam. Mhm. donc kon nekkul problème boo xamante ni problème bu sens euh, bu ndaw la. parce que toujours xol moom dafa lié wu ak dundoo doomu aadama. parce que moom mooy mooy mooy mooy mooy moteur bi. exemple tey bu oto mooy moteur bu taxawee oto bi du dem. donc comme que am na ay fonctionnement yu koy doxal ak yu demee noonu. donc su amee problème rek oto bi mën naa am problème. donc loolu mooy loolu moo ci loolu moo ci doy waar quoi. bu ko defé nak ñu jox leen dig dajé ci deuxième partie bi ci solution ay ak prévention yi. inshallah allah incha allah rabi kon jërëjëf professeur ñi seetaan tam ñu leen di remercier ci suñu bi ñu suivi bi di leen wax na ko xamanteni am nga ko yaakaar ni façon fièvre bi am na ko nga partager ko wala ko am nga am mag rek partager ko dama seetaan bu muy comprendre di mëna bayyi xel bu ko. Mm-hmm. loolu tam lo ci prévention la jëm en attendant ñu ñëw ci vidéo prévention bi assalamu alaykum thank you